te ku ànd ak yow it ko ko wax waaw laa tattaxidu bidanatan min dunikum laa yaaluunakum xabaala ko wattu yàlla ko wax yonent bi wattu la wanittum mag ñu bon ñi bu ñu sañoon ñépp di bandi ñoom ni ko seen mantu yu rëy ak sen bot yu rafet yi ak seen caqi wurus ak sen kale yi bu ñu jaar ci mbedd mi nit ñi ragal leen di leen rukol ñepp ay bandi grand chemin lañu ni ko bu ñu sañoon di bandi comme ñom mu ni ko xam nga ni li genn ci seen gemmiñ ci lu ñaaw dotul kaddu lii génn ci seen gémmiñ ci lu ñaaw dootul kàddu mu ni ko meññeentu mbañeel mi ci seen dënn lañuy gëq mu ni ko te garab ya ko sax ya ko meññ ñu nga ci dënn ya waaw seetal loolu ni mu mettee te man ko sowee ci xef a xeppi bañ bañ bàyyi ko rekk ñuy gëq seen meññeentu mbañeel yi rekk jëme ko ci moom jëme ko ci ay waajuram rekk qad badatil bagdaau min afwaahihim wa ma tuxfi suduruhum akbar wallaay ndeysaan su ko defee muy muñ rekk ñu di ko saaga lu nekk léeg bu beroo sax ba ay gan ñëw ñu ne kële kan la ñu ne ko ab ah, bopp bi rëcc bopp bee rëcc te dafa dafa dafa bari solo waaw amul kilifa bu defee borom bi moom it léeg-léeg mu woyofal léeg-léeg mu mel ni dafay jaaxle te jaaxewul façon bi mu koy waxee rek wa ma saaxibukum bi majnun waaw ndeysaan mu ni kële beru ñu ni dafa dof doful de waaw waaw seetal loolu kële beru te ñu ni dof la doxul de waaw su ko defee façon boobu rekk mu nekk ceeg moom mu mel na dafa am yu mu koy jox mu di ci orienté nit ñi am ci baat yu am solo waaw بعد يي ام سولو نك باتو نصيحه تي لا بوك نصيحه موي فيري لابيري يالا وون جوليت يي نيلن نانغي يونتي بي وون جوليت يي نيلن نانغن تابخ سين دوندو تي لابيري ني خاو نانيو مان تنك لب دينه صاح ci baatu labiré ak diinu nasiha ñépp xam ni yiw la baatu yiw la bu mu wàcce waaye duñ ko ca bàyyi daañu dem ba nasiha yàq lu nga xam ni kenn bootu ko mën defar lu tax parce que ñi nga xam ni trafic d'influence mooy seen métier ñoo ca jot nga xam ni chantage mooy seen métier ñoo ca jot bu ko defee lu mu doon faj dootu ko mën a faj dinañu fexe ba yàq lépp te yàlla dafay seetaan ñu naan yàlla du ko seetaan yàlla li mu seetaan kenn dafa xam na mu toll il a assisté à toute la catastrophe du monde waaye Il a assisté à toutes les catastrophes du monde. Bien sûr, il a assisté à toutes les guerres, il a assisté à toutes les paix, c'est vrai. Il a même assisté à la chute de toutes les divinités Ben

séq baatu nasiixa ba nasiixa mënatul dara loolu dafa yam parce que am na koo xam ne bu jógee rek jàmm ko tax a jóg ak farat am koo xam ni bu jógee rek ma ngay seet fu mu lay jaar pour gaañ la te def la naan yow rek laa sopp ah man kat li ma dégg xamul woon ni booy booy wax gor lu baax bu ko tiital am na ñoo xam ne balañ laa mën a gaañ tiital ah man kay li ma dégg man kay nangam nangam bu ko defee bu fekkee ni gëmuloo yàlla rek si fit dafay dem waxuma la dafay dem te daf lay nettali ba ca digg ba mu dagg ko ni la dinaa dellusi bu ko defee mu rey la balaa dellu si da nga yàkkam ci mu dellu si ba wax la lii lan la te fekk dara xewul kat damay fen rek looloo tax am kilifa di baax boo amee kilifa sëñ Babacar si mas na ma wax bés bés baat bu dëgër ni ma doom bàyyil lu mu doon rek nga ne amul solo ma ne ko waay ma ni ko lu nekk boo nee am na solo doo dund doo dund ma ni ko yi am solo bariwul xamuloo ni ma ni ko sa ñaan nag am na solo moom kooku nangu naa ko waaye ñii di def chantage ak di nekk fii ak di nettali ak yu kenn xamul faalewuma leen sax waaw te loolu mooy dëgg ah boo ko deful ñu rey la di waaw ah. boo ko deful ñu rey la da taxaw temm nag wale ko pas-pas waaw loolu moo gën mas naa dem di ko seetu seeti mu dawal loxoom ci sama yaram ni gisal takkul gàllaajkat ma ni ko sa ñaan ma gënal gàllaaj fuuf waaw ba tax na yàlla foofu la jaar ak yonent bi wa tax والله أحق أن تخشى نعم نكاك ممشي اللولو نكاك ممشي اللولو با همغا مكني تي ديو لنيو دان فاجي سخل كر وانتي ba ca yàqkat yi jotee la dee yoo yàqu benn mag mënatula faj aajo ci déeyoo ndax yàqkat a ca jot moo jot ca déeyoo ba moo tax rek borom bi daldi ni bàyyi leen déeyoo yi waaw innama najwa mina sheytaan déeyoo léegi yi daal sheytaane la maanaam ki ngay téye yoon seytaan ne ko yabal ci yow de loo ko wax ci sa jabar mu gaañ la loo ko wax ci sa doom mu gaañ la loo ko wax ci sa jëkkër mu gaañ la loo ko wax ci sa xarit mu gaañ ndax innama najwa min acheytaan léegi déeyoo dootul faj soxla gor waaw loolu la yàlla wax la xayra fi kathirin min najwaahum seetal loolu te am na ñoo xam ni dañu dañ kumpa ba boo leen kobasee rek dootuñu am jàmm waaw te loolu ko xam sa bopp doo ko def ko xam sa bopp doo ko def ba moo taxit jottalente jottalente jottalente jottalente lu mu jëriñ tus mu mel ni yooyu yépp dafa mujj révolté moom borom bi wallaay ni lépp nañ ko yóbbu ca pénc ma lépp ko yóbbu ca pénc ma daal di dàq déeyoo dégg nga dàq nasiixa caaxaan yépp mu ne nañ ko yóbbu ca pénc ma waaye pénc ma it mu exclure ci ñaari nit ki gémmiñam rëy te mënul soutenir un débat parce que amul élément bu mu ko soutenir ak ki am élément bu mu soutenir débat may yarul bopam ci wax ak mbolo koku nañ ko dak mom itam kële mu tudde ko aladul khisam ki mu tudde ko wil khisam xayru mubin waaw seetal loolu mel na assemblée bi rek ñu ni nañ ci seet ñi nga xam ni nangam nangam alatul xisam la ñu ñu dàqaleen wala nañu seet ñi nga xam ni fil xisaami xayru mubin la ñu ñu dàqaleen noonu la mel su ko defee waaye rek mu jox feu vert yonent bi bu leen ma nee dabaatal mu dabaatal leen mu ko mënul nag mu bàyyi leen ñu dem waaw moom kay noonu rekk la bu jamono doxee ba lu doon jëriñ bëgg a yàq mu daal dina nañ ko écarté waaw waaye façon bii nag ci aada baaxul baaxul ne aada di doxale ci réew mi baaxul baaxul de baaxul de moo tax mu ni woon diine du daan aada mukk ci senegaal aada rek mooy daan diine ci Sénégal te nag kenn amul ci pexe kenn amul ci pexe parce que kenn amul njàmbaaru taxaw ci kenn amu ko dañ lay wax sa pàqu maam boo koy defee rek nga dellu ci gannaaw soo demee ci yooyu بوي جانغ مختصر بو الامام الاخضري امنا تبات بني وخ العزب بات بني وخ العزب مك ني جيك ني تيكو فيري جومبلو mag ñu mujj ñi di ko firee naw jëf lu tax ñu daan ko firiloo fireel lu tax ñu daan ko firee jomblu moo daan tax boroom kër taxaw ci diggu këram di bakku nangam nangam nangam nangam te li mu def yëpp amalul kër gi benn njëriñ parce que ci àdd rekk la ko teg tegu ko ci xaqiqa moo tax fokk kër ga tas waaye ñu mujj ñi nag ñoom ñoo ko firee naw jëf mooy daaneel système yépp naw jëf moo xam système mu tubaab la walla bu naar la walla si système bu mu manti doon naw jëf a koy daaneel ndax dangay fekk loo xam ni du xaqiqa du farata nga teg ci dund ñépp waaw waaw mooy système tubaab yi ngay gis waaw naw jëf la bëgg nañu bés bu ne ñu won la loo xam ni yow da topp ci ñoom di daw rek waxtu wu nekk da topp ci ñoom di daw waaw nga defee ni ñoom rek man keneen mënul bu ko defee daañ ci dem ñoom bay wujjeek yàlla waaw te fekk na li ñuy def yépp yëfi jàmbur la ndax fi lañ ko fekk ci kaw suuf lañ ko fekk di ko jariñoo ba def yàlla wujj bu ko defee ñi gëm yàlla gëmu doye di yépp dam fekki leen waaw dara nga ci mënul moo tax ñu tudde ko naw jëf naw jëf naw jëf maa ngi koy wax ci ndeysaan benn mag bu baax ca ndar ma xam ko waaw boroom cër la am benn njabootam bu ko ni dama bëggoon nga ñëw kër ga añ si fa xawu ko ko ñeme wax sax ndax kilifa ga dafa am solo mu d'accord ci bi muy ñëw di añ si nag duudu eh, muy servir gan yi boroom kër gi ni ko dawal sa kër tànt nga toog fa ndax sama kilifa dafay ñëw tey te sama soxnaa koy jox añ tabarkalla la ñu defar añ ba kilifa ga ñëw tabarkalla yëpp ba fa kilifa ga jóge mu dem seeti sëñ kër Si ni ko sama bët de njaaloo na tey mu ni ko ku ko seede ah, mu ni teg mu ni ko déet ku ko seede mu ni ko xanaa yàlla mu ni ko kon denc ko ba fekki ko waaw waaw denc ko ba fekki ko nga wax ko moom comme moom rekk ko seede waaw denc ko ma ni waaw kon nag télévision yi naka ci pexe kon moom nag a ci pexe xanaa kon yow moo taxit ñaaw njorti ci yàlla baaxul waaw te àdduna moom ni mu koy doxale rek la koy doxale tabarkalla la ndax li mu wax ni dina doxal jamono moo ko wax de nee na may nit ñi yaatu may leen wërsëg tabarkalla tabarkalla ba ñu àgg ci yàq fu nga xam ni la cay mujj mooy mu ndar képp leen fi dulali min alxamaam wala min kulli xadabin yansiloon waqtaraba alwaadu alxaq moo tax mag ñi ne ak kooku dikkagul iqtiraab alwaad alxaq dikkagul ndax nii mu tërale sunu sëtaat di sëtaat di sëtaat sax du ko fekke Maodo ci chart mu bañ a mer nee na bu meree dootul ormal délai waaw tout de lay réagir waaw moo tax mu daan ñaan ñaanam gu gàtt googu ci ñaanam gu gàtt googu ngay dégge déggam li mu daan wax ni yàlla bu nu meram bett waaw hmm. te commencé na ko léeg-léeg nga dégg ci pays asiatique yi wala pays Amérique du Nord yi loo xam ni dangay ngay jaaxle nu mu fa mën a am ma ne ah, loolu de yàlla na nu sore ndax ni nu nasaxe bu nu yàlla betteeg mer musiba am gis ñoo xam ni géej gi dafay mer ñëw rey ñëpp lekk ñépp te du tee ñu takku rek commencé waat waaye fii taw bu tuuti rek. bu ñëwee nga gis ku nekk yenu sa ñaari loxo ñii naan sama tame ba dem naag sama kook ba jotatuma ci man fu ma jëm seetal loolu bàqaar ba nga ni lii lu mu doon bu nu yeboo di ñaan jàmm rek te jàmm jóob it baaxul dama mas di jàngale ca saalu sëriñ Babacar si booba maa ngi commencé jàngale ci 9 ba ñu noddu ci soir ma bàyyi doomu soxna ya fa nekkoon yépp ma di leen jàngal ba sama najaay jóge kawlax ñëw seet si ma jaar fa ci 9h demi fekk maa ngay jàngale mu dem ba 11h ñëw fekk maa ngay jàngale mu dem ba midi dee demi ñëw fekk maa ngay jàngale ba ñu noddu tisbaar ma so ba noppi mu ni ma waaw yow mënuloo def commerce ndax sa ñaari maam yëpp commerçant lañu Maodo commerçant la Alaaji Abdu Kan commerçant la mënuloo def commerce sama xol bi tàng ndax booba defe woon naa ni sëriñ laa waaw ma defe ni sëriñ laa comme ni mu xewee léegi rek waaw ma ni ko yow man ma war a nekk wasila yaa ayuha alladina amanu taqullaha wabtagu ilayhi alwasila maa ngaa tiitarukat yàlla xam na ko mu ni ma fekk at yu néew ma ni ko ah, mu ni ma xam nga kuy nekk wasila nit ñi ma ni ko ah, mu ni ma ceebi jën te waxin la waxin la ndax Maodo nee na am na góor yu nga xam ni bu ñu bu ñu amatul dépense nee na dootuñu teewlu ci julli te loolu am na mu ni moo tax ñooñu liggéey war na leen te bu ñu liggéeyee ba amit sàmm ko war na leen waaw farata la waaw ndax dafa daan wax ni diine kenn du ko dunde politique kenn du ko dunde ñoom ñaar dañ lay orienté ci dund rekk waaye doo leen dunde daf ko daan wax waaye rekk ñaari fan laa ca teg wuti bitig yàlla xam na ko bitig buñ ma làmbal rekk won ma ko ma ma gis ni bitig yi yaxayti la ba mujj ma àbb góor gi bitigam bu mag boobu ngeen xam ci kër Mahmoud jox ko Yaxya Jàllu ni ko nan nan def commerce parce que sama najaay li mu wax dëgg la ñu commencé commerce bi wallaay ma ni ko mbaa dina baax mu ni ma dina siiw de ma baax mu ni ma dina siiw waaye boobu ba tey bàyyiwuma waaw te loolu rek mooy lay am solo Maodo def daan def commerce waaye nee na man dafa bokk ci sama mbir saafaru bu nammee jur jàngoro dama koy teg de nee na ndax bi may def commerce te kenn bokk ca yépp marché na waaye bi ci ñëpp dugalee seen loxo yi la yàqu waaw doo ko wax de nee na moo tax ba mujj bàyyi dem ci mbay mi dem ci njàngale mi sëñ Babacar nee na ci mujj dundam ne defe na ni ñetti fan ñeent la ca teg wuy ji boroomam nee na mu ni ma ñaan googu may faral di ñaan na ngeen continuer di ma ko ñaanal mooy ñaanal leen ma jéggi siraat yomb ma leen ma jéggi siraat yomb ma ndax fu jafe la xam nga loolu doy na yeddeel dangeen ngeen ñaanal ma itam commerce bi ma daan def ak mbay meeg njàngale mi bu ma taxawee ci kanamu yàlla ni ko mooy sama métier mu nangul ma ko ndax bépp góor bu taxaw ci kanamu yàlla mun la lu doon sa métier te waxuloo ko ne bu keroogee daa am lu la soof mu ni bi ci des fi ñuy peesee yiw yi ak yi dul yiw ñaanal leen ma yonent bi taxawuma fa waaw wa indama nusibal misaanu ma qul xasbiya allahu métier baax na moo tax baax na dafa am ku ko laaj ni ko li yonent bi wax ni valeur yëpp dana yéeg dellu fa ñu nekkoon vertu yëpp dana yéeg dellu fa ñu nekkoon su amee lu koy remplacer mu ni ko amul lu ko remplacer mukk wante nag am na lu nu mën a def mu ñu ko lan la mu ñu ko ñàkk jot rek fexe ba atelier ba doo ko def waxtaanukaay bitig ba doo ko def waxtaanukaay bureau ba doo ko def waxtaanukaay waaw moom daal fexe ba ñàkk jot waaye léeg nga romb ci bitig foo xam ni daf lay jaaxal sax borom bitig ba nu muy jaay ndax waxtaanukaay lay doon nga romb chantier boo xam ni dootoo dégg mbel mbel mbel mbel doo xam lu tax te yooyu yëpp ñoom dañ ciy bàyyi xel ndax ëllëg a tax ëllëg a tax melni fofu foofu lanu tollu pexe amu ci limu mu daan ñaan nak yàlla bu nu meram bet fi dulalin min al ghamam wala min kulli hadabin yansilun yàlla bu nu ci meram bet waaw neena ndax mer ma bu ñëwé neena di nga seen xiin da dafa ni dafa lay tawal ca sa tool nga bay ta fekk musiba la ëmb nee na bu ko tawee rekk àdduna tukki wala min kulli hadabin yansiloon fi mu nekk xoolu planète Terre bii ay mbindeef a ngi ci yoo xam ni dana leen génne ji bés bu leen génnee boroom kër dootul moom këram te ñu ngi tel toll ni perental waaye ëpp nañu nit ñi fukki yoon te dañu bari doole ba nga xam ni ku ñu dugg sa kër nañ la fa lëjël lu fa baax nañ ko yàq waxtarabal waxdul xaq waaw ne bu ngeen gisee loolu bu ngeen yeboo xam ni yëf yi jageñ si na ma ne loolu ko yàlla bu mu ne fi fekk waxtarabal waxdul xaq boo defee Maodo ni ixtirabul waxdil xaq de bu meree du ko ormal mukk waaw léegi la koy def loolu noonu xam nañ ci dara bër bërki démb xanaa xale yu tuuti yi ñoo ko fekkewul waaye bërki démb nit dana fomp watiram ba mu jekk mu bëgg a dem cees mbaamu dem Ndar mu génnee ci tali bi mbott yi ni ko doo fi jaar loolu bër démb la nga defee tali bi yëpp yàqu oto yëpp yàqu yëpp yàqu bërki démb loolu junj la ci wàllam dafay fekk lu tuuti mu lëjal la ci ba dootuloo man dara ak ak jamono janax ya nga xam ni nit dafay rusa recevoir sax xaritam ndax janax yu bari rek ci dëkk bi yàlla xam na ko pour wax la ni lu ko neex mu def waaw lu ko neex rek mu def moo taxoon rek yonent bi bëggoon mu woyofal mu ni ko ah, ñaanal bokk waaw wa salli alayhim inna salawatika sakanun lahum mën na nekk sa ñaan di dal ci ñoom te man ku dalul duma la tànn waaw yàlla ku dal rekk lay waxal waaw waaye tës tës ju dul jeex kooku bëgg ko bëgg ko ci diine bëgg ko ci politique bëgg ko ci aada la xam na ko ma ni ko kon de ah xaw ma nooy def ak waa Sénégal ndax ñoom pour pour ñoom diini testes la aada testes la politique testes la waaw ma ni kon booyee boo nga sàkk pexe léegi moog yonent bi ci loolu mayu ko jàmm benn yoon la tabarkalla tabarkalla surtout surtout ci jamono ci jamono maa ngi koy wax moor jama ma ni ko ma ni ko ba ci tagg yonent bi boo ci teeyul rekk mu jural la musiba ma ko nii ngay taggee yonent bi ma ko noonu lañ daan taggee dammel ëmëri ngóone te boobu baaxul mukk ma ni ko yonent bi ku koy tagg danga koy tagg ci ci xaalam waaye doo ko tagg ci sa xaal mukk ma ni ko te xaalam nag ma ni ko espace intermédiaire la waaw dara du fa dugg te càmbaruñu ko mukk kon dee ko tagg ci teggin waaw dee ko tagg ci teggin waaye di tagg yonent bi mel ni kuy tagg demel mbiri ngóoni boobu baaxul baaxul de wax la ko léegi man li ma gis xaw ma ko di tagg yonent bi di tiitaru yëg yi ñu kenn xamul yëfi dof ni waay loolu kenn du ko def waay baaxul waaw yare di ko ba àgg foofu baaxul surtout ci mag loolu baaxul ndeysaan góor gi ci baaxam sëñ kër Si bu masaan di gàmm ba mu guddi xam na akku nit xam na àqu nit bu ko defee ndeysaan ñi tàyyi ci tukki beeg yëpp dañuy nelaw bu ko defee mu déy la ndànk ni la waxal fejoor ni ko mu yéen nit ñi bu ko defee fejoor rekk bu taggee yonent bi nga dégg ñépp fettasu ci jumaa ja ba ca ba loolu moo baax waaye till till till till rekk bëgguñu gis la walla ñu dégg la kooku baaxul ku baaxul nag yàlla daal ne bu dal amee daal mu tànn waaye bu dal amul it mu seetaan kooku lool rekk la su ko defee baatu us bu nag naw jëf nee ñu mooy détruire système yépp waaw di naw jëf te teguloo ko ci essentiel pour lan naw jëf te teguloo ko ci essentiel xanaa caaxaan kooku doxul boo dee naw jëf danga koy teg ci xaqiqa waaw dama mas a gan gan gu réew sax bàyyi ba palestinien la boo xam ni révolution bu nekk fekk na ko waaye doom bee ko gën a dal nag waaye terewul rekk ñoo xaw bokk philosophie mu ñëw seet si ma fekk keroog ma war a dem kër Alaji santi seen waxtaan di fa ca Tëngéej mu ni dafa am curiosité bëgg a fekkee bëgg a fekkee waxtaan wa ma boole ko Ousmane Cissé mu ñëw waaye naka la wàcc nit ñi tàccu rek mu gett dama yëguma ni dem na sax dellu fa ma ko dalaloon ndeke tàccu yee ko metti nee na daje diine bu ñuy tàccu ne fii rek la ko gisee gise bu ko feneen ma ñëw rek ndeysaan ma nga triste ni تتلاعب بعواطف الجماهير ني داماي جونغلي اك سنتيمان فولي ماغا ما يد دي تا وانا دغ انا آه، دغ ماني كو واي دو سونو هيريتاج هيريتاج تو ابي لا نوكو فيندي ماني كو يو دو يانغي سول بدل يانغي سول فيست ها ماني كو تلايسات بزي من ازياء العرب albadala waaye nu mujj d' accord mu wax mu xam ni la mu ko wax dëgg la ndax ma nga sol costume te costume du yére arab ñu mujj d' accord waaye pour wax la ni kërën kërën baaxul baaxul ci diine baaxul ci aada baaxul ci politique waaw tabarkalla yàlla nu dimbale lu yëngu ci réew mi rekk mas nañ ci participer te farata tax waaw farata piir moo tax ñu daan ko def xëy na ñi xamul sax ñi xamul neneen lañ koy tuddee mais on s'en fout na fekk li ngay def xam nga ko waaw li ngay def xam nga ko tabarkalla tabarkalla dañ ciy sant mag ñi ndax dañoo àndoon ak mag ñu xam ni seen générosité dafa ëpp te bu ñu la bëggee bu ñu la bëggee attaqué rek ñu dal di jóg kenn rawu ci woon Serigne Alioune Gueye kenn rawu ci woon sëriñ Moussa Niang waaw wax dëgg yàlla kenn rawu ci woon nag seeni Cheybatu surtout bu ma masaan dem di jàng ci moom. dafay ko toujours nag damay yóbbaale lu ma naqadi dafa am ku may def lu ma naqadi su ma ñëwee bala ma jàng dama koy damay jàngatu yi ma metti yépp ak yiñ ma def yépp bu ma àggalee mu ni dibyaana dibyaana ñëw mu ni ko may ko ndox bu sedd mu naan mu jox ma ndox bu sedd ma naan mu ni ma waaw kay tontu làngo xam nga ko xikma la mooy am na koo xam ni warula tawat dëgg-dëgg bu tawatee rek dafa juum waaw ko jox ko ndox bu sedd mu naan ba defee ba ma naanee ba noppi rek mu ne waaw kay tontu bàngo ki ma ci mujj waxal sama maam yi bopp la xaj Saydu Nóor ci temps yooyu la dem daya mu di ma wut maa ngi ko gis mi nga xaw a jeex sax

sa papa masul foye bakkan nit yi moo tax nanguwul ko foye bakkanam seetal lool nit ñi boo foyee seen bakkan ñu foyee sa bakkan dara nga ci man mu ni ma sa papa ma masul foye bakkan nit yi moo tax masul nangu ko foye bakkanam wax bu am solo la waaw wax bu am solo la tabarkalla am na bés xam nga sëriñ Alioune Ba bu ngumba ngéwul yow naa ko ci xamule dégg na turam dafa daan wax waa këram dilen leen wax sëriñ Alioune Ba wax de bu ngumba géewul ñu bari dégg na turam dafa daan wax waa këram di leen ma wax yaa aliyum ba laa tatakabbar innaka abdul lasta bi shay wala yaa aliyum ba laa tatajabbar innaka abdul lasta shay xam nga loolu ku ko dëkkee wax di nga xam sa bopp mag ñi def ci am ño xamni dañu mënon seen bop tabarkal ak mag ño xamni nak mënu ñu seen bop waaw te lolu baxul lolu baxul tabarkal la lele yàlla may le kilifa go xamni loko wax rek da fay daldi gis haqiqa bi waaw lo am solo la ndax kilifa gudul gis haqiqa fokk nga foyeko te kilifa buñ ko foyé rek jaratul ñaan dërëm ma wax la ko tey waaw bu ko defee rek ndeysaan booba doom bi xaaj Omar Omar Ba moo daan ñëw di seet si sëñ Babacar di nekk ci man nag ñuy échangeante ay baati philosophie ci mag ñi wallaay di ma nettali loolu ci papaam moo leen koy wax ni nañ koy wax yaa aliyum ba laa tatakabbar innaka abdun lasta bi shay wala yaa aliyu mbah laa tatajabbar innaka abdun lasta bi shay waaw ndeysaan ak nun yam bu triste boobu nga xam ni benn bayta nga ca dama ko daan tari fa muy wax ndeysaan wala laahu walaw laahu walaw laahu law laahu la sirna xaasiriina góor gu bàyyi woon xel boppam la tabarkal ci yooyu la nu jëkkee parce que boo ko jëkkewul àdduna tukki boo ko jëkkewul rek àdduna tukki su ma defee ci façon boobu rek nu topp ko ci wàllu yonent bi te bañ a bàyyi ndax guddi gi guddeem la nag jikko ji jikkoom la waaw borom bi boromam la waaw mu mel na dañu nekk ci réew bu nga xam ni li leen yàlla may xamuñu ko te buñ koo xamul dañ koy foye te buñ ko foyee dañuy ñàkk dañu ñàkk seen héritage bu dee wàllu diine danga koy xam waaw danga koy xam-xamu xaqiqa waxuñu xam xamu waaraate walla leneen dama am sama benn ndeysaan mën naa wax sax ni doom la ci man wante baay bi xaritu benn bakkanu Alaaji Abdu la daan na fa dem di fa yendu ci baay bi nag daf koy faral di jox teraanga toujours ni ko demal seeti sa mbokk sëriñ Cheikh nga waxtaan ak moom bu ñëwee bu toogee rek lu ne la may laaj ma di ko ja tontu lu ma xam lu ma xamul it ni ko xaw ma ko ba yàlla te ma tukki yàgg fa dellusi si papaam yëg ko ni ko dawal seeti sa mbokk mu ñëw seet si ma man ni ko mbaa yaa ngi toppatoo laajte bi ba léegi mu ni ma bàyyi naa ko ma ni ko lu tax mu ni ma ku téeméeri nit waar nga dof mu ni ma te fi mu nekk dof naa complètement ma ni ko wax nga dëgg am kilifa gu la orienté mooy li am solo am kilifa gu la orienté li am solo farata piir la lanu ca daan daj yàlla xam ne ko waaye taxul sax ñu am ca lu bare waaw na la ca fortu rek nga cay am te lépp nag dafay dellu ci wàllu yonent bi sallallahu alayhi wa yépp dafay dellu ci wàllu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa am bés gan gu mag ñëw fi ni dama soxla ku ñu wax Cheikh Tidiane ñu indi ko il a une forte personnalité On a sol bottom, on nga sol manteau. tabarkallam te te borom jikko la ñu ndi ko ma ni ko toogal mu toog ñu ni ma jógal ñu dem ma ni ko fan mu ni ma ma yóbbu la nga tuubal mag ñi ma ni ko d'accord waaye nan jaar fii ci bàmmeelu Babacar Si nga wax ko ko da nga wax ko ni ko lu ciy musiba na këpp ci sa kaw mu ni tekk ba mu yàgg mu jox ma loxo ni ma baal ma ni ma ndax am nga daayira ma ni ko waaw mu ni ma wol président bi mu inscrire ma ci fas naa yéene at mu jot ma joxe sama cotisation at waaw ma ni ko xamuloo bi fa nga nekkoon li ngay wax yëpp maa ngi koy dégg ma ni ko caaxaan baaxul fekk mag mu toog xamuloo lu mu toogee nga ni danga koy yett foo ko teg mu ni ma tuub naa ko dootuma ko def mukk waaw que yenn yi boo ko nangoo si kilifa ngay wàcce te baaxul nag nit du wàcce kilifaam mukk nit du kilifaam baaxul la Chérif Habib waxoon ku am may la ba mu jëkk ba mu jëkkee wàcc ci dëkk bi ni dama bëgg rencontrer sama turandoo maam Seyid Cheikh Ahmed Tijani ñu wax ma ko ma dem seeti ko mu ni ma man de dama dégg lëndëm lëndëm ci seen famille boobu ba tey dama xam ni ñu kër Cheikh bu ñu amee lëndëm lëndëm gisuma ku ko war a dindi ku dul yéen ma bëgg rekk nga waxal ma góor gi ni ko dama bëgg ànd ak sa ñoom papa ñëw seetsi ko ma ni ko baax na naa ko ko wax may dem mu wooma ma ñëw mu ni ma kañ nga gëj a gis sa papa Haj Mansour ma ni ko yàgg na mu ni ma mën naa la yóbbante ci moom ma ni ko waaw mu ni ma waxal ma ko ni ko ñaan naa la pour nga waxal ma góor gi mu wutal ma bés ma ànd ak ñoom ñu dem seeti ko ma ni ko naa ko ko wax ma jaari ca kër Haj Mansour Ndakaaru mu wax ko ko fekk def feebar sax mu ngi tëdd tabarkàlla waaye kër gaa nga dell ak ay bokk Alaaji Mbay séen ma rek xàmme ma daal di jël ndànk rocc ma maa ngi sol yére yére alkaati waaw xanaa yooyu rek laa daan sol ensemble kàkk yooyu naka la ñëw mu ubbi bunt bi ni ko ah, am nga gànde ni ko sa doom Serigne Cheikh mu daldi am yitte waaw ni ma kaay toog ci lal bi ma ni ko ëpp naa def bàyyil ma toog ci suuf ma ni ko shérif nee na mi ngi ñaan góor gi pour mu recevoir leen ak moom mu ni ma balañ ca àgg dama bëgg wax la lenn laajal ma góor gi lu mu gën a bëgg ma def ko ma ne ko kooku laaj jarul ma di ko ko laaj parce que xam naa ko mu ni ma lan la ma wax ko ko baax mu ni ma ah loolu yomb na ma ne ko ko nag def ko yàlla te ma dem seeti شريف آه سيدي سيدي بابا كرسي وقل لي شريف وغيب ونتك بوم يقني ما تيانجا ماي ما فيك سوبرك ما رفلشيرك ما نيكو بانا يلا عطي جايلك سما دم سيدي مني ما وخل شريف نيكو li ma gënal mooy nu bañ ko def nun rekk ndax réew mi réew mi wëllëre yi ñu ëpp doole bokk yi te bokk yi itam ñi sant si ëppul ëpp doole ñi santul si xanaa ñi santul si ñu ëpp doole ñi sant si kon daal dama bëggoon ñu def ko yëfi mbooloo maanaam ñépp fekke ko bu ko defee kenn dootul am ni danga am sentiment frustration walla leneen bu ko defee ñu ko war a fekk jigéen fekke ko xaleel fekke ko mag fekke ko ma ne ko ah boobu de rafet na parce que nit ñi dañoo am àq te ku ci ne jël na position nag moo xala ko ma ñëw wax ko shérif mu ni tekk ba mu yàgg ni ma lenn de laa ci ragal sa turandoo dafay wax ni am dañuy réagir fitra waaye duñu réagir mantiq ta mbolo fu ñu daje ma bëgg mu may ma rek ñun ñent ñu ñëw seet si ko ma ñëw wax ko gor gi munima défar na liste bi ba nopi ko wara ñëpp <laughs> waaw wax baax na de aayul parce que ku nekk ak soxlaam ñu yewi leen boog tabarkalla yenn yàlla fay leen yiw seen présence am na solo tabarkalla bëgg nañ ci bu baax nu yóbbaale leen ci waxtaan rek yàlla dogal liste ba fàttewu ca kenn mu jox ma ko bi may génn ma ni téem a waxtaan ak soxna Umu parce que xam naa fi ko góor gi teg ma ni ko tee nga dem waxtaan ak moom ndax shérif itam ku mat a sagal la te moom ñemewul mbooloo parce que dafa ragal réagiru ñen nag mu dem gis góor gi waxtaan ceeg moom bi mu génn seen ni ma ah te ñu ko bàyyi rek mu doxal ni mu tërale moo ciy tànne ko ba baax na ma dem wax ko ma wax ko shérif mu ne ma kon nanu ñaan rek te def noonu ni mu ko bëggee ñu defe ko noonu tabarkada keroog ñépp ñëw kenn desul xam nga loolu mooy yëgloo nit ñi ni ndeke yëg nañu seen wëllëre kër gi waaw keroog ñëpp ñëw tubarkalla wante kilifa yàlla koy sàkk moom daal wax ja na mu gàtte ak na mu amee njëriñ kenn mënula ko nettali ndax Haj Mansour dafa wax ni kii moo ma yar xam naa jikkoom bu ñu ko bàyyee mu wax yu ko naqadi yépp def faatiya yépp dana baax waaye bu ñu ko bëggee tere mu wax li ci dënnam du baax sëriñ ndakaaru ni ko boobu du yoon wa ndax dafa waroon na woo ñi ko tooñ ñu toog te ñi ko tooñ ñett lañu kenn kaa nga tëdd ca Madina ka ca dese nga tëdd ca Faas ki ca dese ngi tëdd fii ci Tiwaawan ñoo ñoo ko tooñ waaye keneen tooñu ko ndax ñoo ko jox li doomu soxla rekk nit ñëpp fette suñu wax na dëgg ma seen nag bëñam ba di génn ma xam ni bëgg na wallaay ndeysaan yàlla xam na ko moo tax kilifa dafay mat kilifa alaaji Habib soog a jël wax ni ko doo mucc ndax sa baay muccul woon ni ko sa baay àggoon na ci nit ñi di dëbb kaani di ko xëpp ci bëtam te yow dinañ la def lu raw loolu ndax la mu amee woon yaa ko amee te am na loo ci yokk ñëpp daal di fett su kontaan góor gi Alioune Kandji daal di jóg te moom am na yuñ ko doon sànni ay baat daldi wax ni mag ñi dañu daan am téere wattal di ko takk waaye léegi takk téere dafa xewi waaye nag am nañ ci pexe man am naa ci pexe pexe mi mooy dama koy def ci sama kalpe sama téere wattal daldi génne kalpeem dugal ci biir ñu defee ni téere lay génne mu génne photo sëñ Babacar Si daal ni sama téere wartale ngi këroog nit ñëpp dañuy jommi mu nekk bésu barke boo xam ne kenn mënula ko nettali pour wax la ni kilifa rekk mën a defar àdduna waaw kilifa rekk ko man kilifa rekk ko man tabarkalla eh, su ko defee loolu nun dañ koy dund fii ci senegal dañ koy dund te duñu ko dund la ma waxoon Jean-Baptiste Colbert Nous... Nous na intellectualiser la médiocrité Nous avons intellectualisé intellectualiser la haine Nous avons intellectualisé. intellectualiser bu dee haine bi bu dee médiocrité bi bu dee jalousie bi lu ngeen ci intellectualiser sunu doom yooyu ñëw ci tugal jàng ko ci yéen te boobu duñu ko nangu ma ni ko na ngeen leen bàyyeek seen jikko way jur yi mu gën mu ni ma dara reyu nu ludul sunu révolution waaw ndax dañ ko bàyyi ci loxo ñi ci mbedd mi nun ñépp nu làqu ci bu ko defee ñu détruire valeur chrétienne yi fi nekk yépp détruire valeur républicaine yépp te wax na dëgg ñu waxtaan ci ci boobu façon te nit la koo xam ni ku yéeme la ci wàllu xam-xam ku amul moroom la mu ni ma foofu anglais ñoo ñu fi ëpp chance parce que ñom li ñu am ci stabilité ñun amatuñu ko nangam nangam dal di xula xula xul pour wax la ni Sénégal sen chance moy ñu jafandu ci kilifa yi nek kilifa waaw ñu kilifa yi nga xamni dañu kilifantu lolu moy sen chance fi ñu nek yàlla xam na ko